ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare ci weeru tedd wi ñu nekk muy weeru koor di leen ziar bu baax ci jamono ji ñu toll ci weer wi muy fukki fan yi nga xam ne moom mujj ci weer wi di fukki fan yu bari barke di fukki fan yu bari ngëneel ñu leen di dalal jàmm it fii ci dëkk bu sell bi di Touba di dëkkub Cheikhul Khadim radiyallahu anhu di leen dalalee jàmm it fii ci Madiana ci kër Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Chouaïbou ñuy yëkëti kàddu yi nuyooyu ak ziar yooyu nag di ko tàmbalee ci Maulana Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim di ko ñaanal suñu borom kàttanal ko te dëgëral ko te guddal fanam te barkel mboolem ay yëngoom ba mot li yéene yi am yëpp ngir diggeel Cheikhul Khadim di yëkkati ay kàddu yu cantit di ko jagleel sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne moom la ñuy amalee jotaay bi fii ci këram lépp ci ak saytoom Euh, ñu ko ci sant bu baax ci taxawaay bi ak mboolem taxawaay yi am yëpp rek ci yoo xam ne yu jëm ci yoon wi la ak njàngaleem sëriñ bi di jottali bu baax it ay kàddu yu cant ak nuyoo ci rakkam Cheikh Mouhamadul Bachir mu Cheikh Abdoul Khadir moom it di jaar ak moom foofu rek di ko ñaanal suñu borom kattanal ko te barkeel ko. di leen dalal bu baax it ci jotaay bi nga xam ne moom la ñu nekk ak yéen ni tey muy jotaay boo xam ne it li ko wund rek mooy xam ngeen yéen ñëpp ne jamono ji ñu nekk. muy wéru koor na ñaar ko fana juróom-ñaar ci wéru koor wax nañu ne cheikhul khalim radiyallahu anhu ci la wote won wooteem bu reey bi nga xamne mo moom mujj siiw bañ koy wowe yoonu murit ci la ko wote won kon muy xew-xew bu mag bo xamne bu am solo la ci ñun waa kër bi xew-xew bobu nak del ci gi mu del ci tax ñu amal jotaay bi tay te liko taxaju rek moy fàttaliku xew-xew bu reey bobu ñu wax ne nak waras kon amal ab jotaay bo xamne woote boobu sëriñ bi woote woon ci Mbàkke Kajoor kon danañ def jotaay boo xam ne dañ ciy fàttaliku woote boobu mooy lan dëgg-dëgg ak bi mu jugee léegi nag lu mu jural julliti senegal ak julliti àdduna bi yëpp kon muy waxtaanu am solo boo xam ne jamono ju ne waras na ko waxtaane waaye jamono jii nga xam ne nag mu ngi tombeek fi ko sëriñ bi doon wootee ci la gën a yell waxtaan wi nag incha allahu taala danañ ci ànd ak ñeent ci ay mbokk ay borom xam ñoo xam ne ñëpp xam nañ leen fii ci dëkk bi nekkatuñ ñuy présenter fenn ci yoonu mourid ak ci réew mi ñoom lañ fas yéene séqal waxtaan woowu muy sëriñ Ahmadou Mbacke Daarul Mooti féete ma ci ndeyjoor ak Oustaz sëriñ Mbacke Abdourahman ak ñi nga xam ne it maa leen féete seen ndeyjoor muy docteur Abdou Lahad Sané ak docteur sëriñ Khadim Silla ñoom ñooñu lañ fas yéene àndal waxtaan wi danañ ko waxtaan nag ci anam goo xam ne anamuk tënk rek lay doon ndax loolu xaju sax ci ñaari jotaay rawatina benn jotaay waaye danañu waxtaan ci Cheikhul Khadim danañu waxtaan ci wooteem bi mooy lan dëgg-dëgg waaye danañu tëjee waxtaan wi nag woote bi bi mu jugee ak léegi lum juralagun Sénégal lum juralagun lislaam lum juralagun julliti senegal kon ci tàmbali rek danaa jox mbokk yi kenn ku nekk mu nuyoo nuyoo bu gaaw ñu fasee ne dugg ci waxtaan wi sëñ Ahmad bismillah aoudu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa moolana muhammad ibni abdillah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 moo nu booleeg ñoom ñu leen di siyaar lool di am mbégte ci jàndoog ñoom. jërëjëf kon sëriñ Oustaz sëriñ Bakar Abdourahman bismillah aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi wa ali mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala barakaatu ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di leen ndokkeel eh, di la nuy bu baax sëñ Mamoor di lu taxawaay bi itam fas yéene ànd ak mbokk yi ci jataay bii nga wax incha allahu taala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 di ñaan sunu borom subhanahu yàggal ko ci sunu kanam waaye di teg nuyoo ak siyaar boobu nag ci sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne tey moo ñu dal fii ci kër gi ngir ñu jël benn tomb ci li nga xam ne dañ koo seq ci wàllu daara ji war ko waxtaane di am mbégte nag ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal ñu bokk daara ji di ñaan yàlla defal ñu ci tawfiix jërëjëf amin di nangu ñaan di sant suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ àndal uh, waxtaan wi kon <coughs> comme ni ma ko waxee woon rek li ñuy waxtaanee mooy Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ak wooteem bii ak lum juralagun réew mi nag boobu ba léegi waxtaan nag danañ ko tënk ci ñetti anam rek mbokk yi ku ci nekk danañ ko jox kàddu gi ñetti yoon incha allah mu wax ci anam gu tënku sëñ Ahmadou Mbacke moo ñuy waxtaanal ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ak num daa yare Oustaz Serigne Mbacke Abdourahmane moom moo ñuy waxtaanal ci wooteeb Serigne bi lan la dëgg-dëgg docteur Abdoulaye Sané moo ñuy waxtaanal ci anamu xam-xam yoon bi mu fi biñ ko bi ko sëriñ bi wootee ak léegi lan la juralagun réew mi ci wàllu xam-xam ci wàllu borom xam-xam ci anam gu yaatu docteur sëriñ Xaadim Syll nag moom moo ñuy ñëwal ci wàllu économie ak sociale maanaam ci wàllu ci anam gu yaatu ci bi yoon wi sosoo ak léegi ci ñaari pàcc yooyu euh, docteur Xaadim Syll moo ci ñëw kon dañuy tàmbalee rek sëriñ Ahmadou Mbacke Daarul Mawti sëriñ Ahmad nga ñëwal ñu rek ci ab tënk ci aslëf ci jikkooy serigne bi waye rawati na nak ak bëggam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillah jërëjëf sëñ Mamour bismillahi rahmaani rahim ni nga ko waxee rek si Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wa ardaahu yàlla nako yàlla fayal di jëm jo xamni ni suñ borom ci bam moko ko waajal tànn ko boole ko ci jaam ñam sopp baaxee na ko itam nun ñi nga xam ne ñoom ñu ñu maanaam baaxee ko adduna sépp sax la bëgg a mu doon koo xam ne mi ngi feeñ ci atum junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk tolloog 1854 eh, ay woy juróom mm, ñu ñu xam lañ sëñ Mamoor Anta Sali doonoon borom xam-xam doon ab faqih doon koo xam ni ku ñëpp xam la ci Kajoor ak ci réew mépp ay waajuram mu jigéen itam muy soxna mam jaara busu doonoon nit ku ragal yalla ku fonku taxaw guddi ngir dundal guddi bari won lol ay jaamu yalla bari won xam-xam itam don ko xani mom seigne touba aw askanam askan wu sell la ndax dafa càllalu ba ci rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ni ko borom xonq mi waxe mu amone ay meloon ak yo xamni yu fess la ndax da Cheikh Sidi ahmadou lismou ci al maqalat fil hadithat dafa wax ne mom ku ko mas gis rek dang koy sop ndax yalla laqad afragha allah subhanahu alayhi al jamal yalla dafa soti mbollem lu dib tar ci xar kanam bobé ndax ne koo ko gis rek wala nga jetaay mom dang dang koy sop léppam dafa tar ay jikom jikko yu rafet la woon kàddoom sax kaddu gu neex la gu soufé amon nak jëm ju tuti nga xamne ne su ko ci mëne su itam ci li ñuy wax digg bi nit waxtu wu ne itam xet gu neex moo daa balle ci moom mosula toog itam lu may daa jublu penku dafa am yoo xam ne da ko def fu mos a toog penku la jublu ak colam itam col gu weex moo ci moo ci moo ci ëppoon ab doxam dox bu gaaw la lim daa defit li ci ëpp ci kàttan la ko daa defee naari gànnaar yi ida kabbara kabbara an quwwa bu masaa kabbar ci jàkka ji ñëpp koy dégg waxam itam wax jëpp digle lu baax la ak tere lu bon ak tudd yàlla Eh, am njàngam it ñu ci taxaw lol xam nga ne eh, seigne Mamour Ansari da ko teel jox ki jox tafsir mbacke Ndumbe ginaaw ba itam dem na ci loxey seigne Bousso bi seigne Bousso bi mom sax moko ko tam tàmbalil njàngum xam-xamam ginaaw ba itam jaar na ci loxey seigne samba tukulor Ka ginaaw ba itam daana dem ci alqaadima jaxate kala di fa ak eh, mom ci walu xam-xam ginnaaw bi itam Cheikh Mouhamed ibnu Mouhamed al Karim Daymaani itam am na lu mu jële ci moom ci xam-xam kon jaar na ci ñu bare bare bare nekkoon koo xam ne itam dafa teela a sotti ci jaamu yàlla yàlla da ko waajal mu feeñ rek li Cheikh Mouhamed Bachir wax ne xuliqa rabbaniyan ba mu feeñee rek la nekk ku bëgg yàlla koo xam ni dafa seey ci ci ci ci bëgg yàlla ak jegeñ jegeñ lu ko ak jaamu ko ba tax na ak jaamu yàlla ku ko teel a min la ak ragal yàlla sax misaal la ci woon dañ ci da joxe misal ci ragal yalla ak sam ak ak maandu ne kon ku bari ay teggin deug itam rek mom mo mo doon ay waxam eh, daw ko ñeblu itam waye ku bari won yermande la itam lum da def da ci day wax bismillah lo mo xam lu mën a doon rek faaw mo wax bismillah tayamun itam da ko fonkoon moy moy moy limi def lepp mu di ko jor ndey joor eh, maanaam na ci jaamum yalla moy waxtu yépp ci njëlbeenu waxtu la ko julli mësta julli waxtu ci digg waxtu wala ci mujj waxtu mësta julli itam te jàppul Cheikh Mouhamadou Bachir wax na ne daa wax ne man du jëfanikoo jëfandikoo ay seel du seeli diine du seeli aada dana seeli diine mooy mel ni nga julli ci ñaari julli loolu mosu ko def ci dundam moo tax julli gu ak njàppum boppam waaw noonu itam ku bari woon lu muy woor la bu wooree itam ni ko Cheikh Mouhamadou Bachir waxee lim daa doge dawut weesu ay góoxi ndox yu tuuti ak tibi baraay walla yu demee noonu mu nekkoon koo xam ni mësta nongoo jëfandikoo eh, ruxas yi yomb-yomb yi ci diine waaye nag dawu ko digle buy digle xëy na la gën a jàpp ni lay wax waaye moom li muy jëfe ci boppam mooy la gën a kii nit jëmm la joo xam ne suñu tubaab mooy koo xam ne mësula am guddi gu mu deful xiyaamu leen guddi mi ci kaw suuf yëpp xanaa njëlbeen ka nga ci mën a seete waaye Cheikh Mahamadou Basir nee na xiyaamu leel yi moom da ko dëkki woon guddi yëpp da koy taxaw di ko dundal ak di fanaane jaam yàlla léeg-léeg mu jàngal xuraan léeg-léeg mu julli léeg muy bind wala yu demee noonu kon ko loolu mooy ak gàttal mënoon nañoo wax ci ay jikkoom ku teel a dëddu adduna la ku teel a doylu la itam ku teel a euh, euh, wegu la te itam mënoon a muñ lool te sawar lool itam te ay waxam waxtu ne wax lay joom yoo xam ne day dëggu te wër te gàtt te làmboo njariñ yu bare bare bari foo ko fekk nekkoon ku tabe itam alalam waxtu ne day joxe joxe boo xam ni joxe ku ragalul ak ñàkk la mu nekk koo xam ne ci yàlla kese lay bëgg xubbiya fillaahi wa buxdi fiihi lii aw salaama kuntu astafihi loolu la wax mosula jàmbal itam dara lu may sunu borom tabaaraka wa taala lu xew rek yàlla ca yàlla la koy delloo moo tax moom noon yi ak bi mu jàppanteek ñoom it mosuñu koo dellu ginnaaw ci lenn loolu it moo indi fuqaraaw yi defoon ko baytu maam rawatina ñi nga xam ne mën nañoo jàng alxuraan wala ñu mën ko bind ndax ab kaamil fi ne foog ku mas a indi mu mu mu mu wecc ko ko ak look ko jaay rek waaw kon loolu moo ko defoon sëñ Basiiru wax na ne am na xeet woo xam ne moo leen xeetali te boo mooy ki ñuy wax Biram Koddu Maram Jóob keroog bi mu euh, jébbaloo ci moom ña nga xam ne ñoo nekkoon ci loxoom ci ñañ jàppoon ci xareeb sàmba Samba saajo xam nga da koo digal mu yewwi leen bañ a jël ñooñee bañ leen a def maanaam libéré leen goreel leen loolee Cheikh Mouhamed Bachir wax na bu dee diggam ak nag ak bëgg Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom mën nañ ne moo dëgg dundam man Sëñ Tuubaa ak dundam lépp ci Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ko la ko la ko la ko jeexal ak liggéeyal ko ak bëgg ko لبم دكو دف أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنا جملة مالي ومدادي والقلم هدية للمصطفى باب النعم وحنا لب لما أمرك دفنا كو أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نولا دا وحنا جت له اليوم بروحي والبدن وولدي ووالدي في العالم جوحنا كو سما روح جوح كو سما جمجي جوح كو سما ويجر جوح كو سما جبر يب جوحنا كو أدي موتخ léppam da ko defoon ba ci kër yim dëkk daal la ka yaa nabiyu manazili wa mawatini wa mawaadii laka bil ali mutaawida bërëb yim am ak lépp ëddi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la woon moo tax benn bànneexu adduna la amoon muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ne muhammadun zinatu dunia wa laddatuha salla alayhi alladi l bahrayni qad maraja moom dala wax ne nit ku yàlla jox lu doy da ngaa war a doylu te man yàlla jox na lu doy sëkk ndax bëgg naa rasulullah sallallahu alayhi wasallam te loolu dara ëpp ko solo ci kaw suuf ghanimtu xubbal mustafa wa aktafi bi daaka fal muta kafaafan yaktafi loolu wax na ci lu bëree bëri loo xam ne waxtaan nañ ko ba tey daana wax ne yonent bi rek moo yitteem ci lépp nabiyuna al mustafa xayrul wara garadi fi kulli cheyin wa ma yabaahu abaahu waaw nga xam ne moom yonent bi lay dàkk ci lépp mbir mu ne lam cay seet mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu dee ci tudd yàlla sax nga xam ne moo gën a mag nga xam ne ak jaamu yàlla gis na bayit woo xam ne da ci wax ne maanaam liman bihi nu diimu dikral ahadi maanaam yonente bi ci yonente bi la ñuy jaare ngir tudd yàlla subhanahu wa ak li mag-mag moo doon wéttalam muhammadun dikruhu unsi wa mafrahati wa nuuru qalbi wa aadai wa rahaati gis nañ itam yitte ju réy jum def ci bëgg a aji makka ak dundam waaye yàlla dugalu ko ndax dara wax ne moom كل زمان لا أزال أطلب لقاءه وأرتجي وأرغب maanaam yitteem moo doon dajeeg rasulullahi ba mu ko mënutit yitteem mooy ziyaare ko arju bi rahmatihil muhdaati sayidina zawri madinatahu daara rayaxini daarun mata ma yazurha zairun li hudan yasaat hiya daaru daarul xaqi wa dini loolu it gis nañ lim ci jànkonte ak lim ci wax nga xam dafa amoon i gàllankoor gàllankoor boobu léeg-léeg mu ne bakkaar la léeg-léeg mu ne sikk la léeg-léeg mu ne li mom xamna bakkar yu reey la yu ne ci man moo tee mënuma aji ba diko ko jéggalu yàlla xafaaru lixfir dunubi waf wafku kan kabali bi man alayya li tarki zawrahu aaru mujj di gàcce ci mom ñak gi mu dem siyaara ji rasulullahi sallallahu alayhi wasallam dundum gep itam liggéeyal rasulullahi la salallahu alayhi wasallam gis nañ mom ci mbindum serigne bi boy xol day melne ci ñeenti anam la doon la doon liggéeyale yonente bi sallallahu alayhi wasallam te moy top sunnam ak tasaare diine ji jàngale ko ba ba mu àgg ci ñëpp ak itam di ko tagg sax ci di ko tagg ak itam di julli ci moom waxtu ne salaatu sitta bi matxi sitta taatihi battamaati say eh, gis nañ itam jëmmi liggéey boobu muy liggéey yonente bi day wax ne dara taxul lu may bëgg rasulullahi rek dëkku ci leneen bëggul ay maqaama wala daraja wala leneen lu may ngir gërëm loo jëmmi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daani li ixdaami nabi xubbu daatihi moo taxit lépp lu laal ci yonente bi rek noonu la ko bëggee woon alquranul karim bi nga xam ne ci yonente bi la wàcc gis nañ ne noonu la ko bëggee woon dana wax ne kitaabu rasulillahi wirdi waraaxati ci la ab noflaayam nekkoon ndax lim jaar ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu dee xadis yonente bi itam noonu la ko bëggee woon dana wax ne xadis yonente bi dana wax ne mooy delluwaayam mooy ay xam-xamam mooy mooy mooy léppam loolu wax na ci lu bare bare bare bare njabootu yonente bi aalu bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam it noonu leen bëgge woon jullit ñi itam noonu leen bëgge woon xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la bëgge woon bisu gàmmu bi itam noonu la ko fonke woon ngir ne ndax ci la yonente bi feeñ ndax danaa wax ne bis boobu sax moo gën a màgg ci bis yëpp maanaam shahru rasulillahi bahjatu shuhur la la daa wax mooy taaru weer yi ndax ci la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñ mi ngoog noonu la fonke woon saxaaba yi ndax li ñu àndoon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam noonu itam la euh, defoon ci mbooleem loo xam ne rek taq na ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon mën nañoo gàttal foofu bañ jël si waat jërëjëf jërëjëf tabaarkalla sëriñ Ahmadou macha allah euh, xamle bi leer na lool donte tënk nañ la waaye euh, lii nga wax rek ab junj la ci la ca des ci ne sëriñ bi lu ñu fu ñuy natt mën nañ ne alxuraan rek lépp lu alxuraan daa nett li ci gaañu baax ñi sëriñ bi làmboon na ko kon bu ñu xoolee alxuraan rek mooy gis nañ sëriñ bi lii nga daane lay wax ci it muy lu am solo muy sëriñ bi ak fi mu àggoon ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii nga ci leeral yaatu na lool kon dañuy jàll ci oustaz sëñ Bakk Abdourahmane sëriñ bi sëñ bu baax bi sëñ Ahmadoon nettali nag ak fi mu jaar fépp xam nañu ne bi mu jógee di borom xam-xam nekk ci waajuram di ko jàppale daa taalif daa jàngale ba waajuram jóge fi mu wéy ci noonu balaa def léeg-léeg sax mu junju ñim nekkal ne leen lii ma nekkee di lu am solo la mooy doomi soxna ju jàng ba mën a jàngalewaat waaye am na leneen lu ko ëpp solo buñ ko waxee lu mu doon mu ne leen lay tax ba xalima ngay bind ci lawxul mahfuz buy bind nga di ko mën a dégg loola la koy maye moo ëpp solo lii ba niñ ko bettee moom sëriñ bi nag jox ko ndigal ci mu woote mu xëy-xëy ñu ne ko rabbi asxaabaka bil himma ne ko gaañ yi nga àndal nag bul yamati ci jàngale rek bis ni tey am nga ndigalul woote woote boobu nag moom lañ bëgg nga dikkal ñu ci ci anam gu tënku ci xamal ñu woote boobu mooy lan dëgg-dëgg ak kañ la ko sëriñ bi wooteeg lu tax mu ko bisimilah. ok jërëjëf sëriñ Mamour ñu ngi sant bu baax ci di jataay bi rafetlu kàddu yi sëriñ Ahmadou ubbee waneñ sëñ bi ci anam gu gàtt waaye gu leer goo xam ne mën naa jariñ ku ne kon ku yàlla waajal la ci wet yëpp mu doon li mu doon. noonu ko waxee nag ci daara la soso ni ko sëñ Ahmadou nekk ci di liggéey ba bis jot mu am ndigal ñu ne ko bul yamati ci am njàngale waaye na nga yar nit ñi ci himma mu am ndigalul kon woo nit ñi ci delloo si lislaam ci nam gën a mate nam gën a rafete kon woote la boo xam ne woote bi lislaam la amu ci lenn lu génn diine yàlla ji nga xam ne moom la ne mooy diine ba mu ko wàccee ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam diine dootu wàcc lu yàlla di nangu la te ab jaam lu nit ci lay jaar diine jooju la sëriñ bi ñëwoon ndigalul yeesal ko la amoon ndigalul yeesal diine jooju diinun siwaa islaamihi laa yuhamadu indal ilaahi nu jaddidu kon mu mel ne fa yonent ya ndax ku ma sa ñëw woote ci lislaam ci lislaam lañ doon woote mboolem diine yi jiitu woon it diine lislaam la woon yàlla Muhammad nag moo ñëw boole matal mottali lépp ba mu fi bàyyi ko nag ay boroomi xam-xam ay nit ñu baax ñoo koy wuutu saxaaba yi wuutu nañ ko fi awliyaay ba mag si sëriñ bi mu am ndigalul nag wuutu ñooñu ñëpp ci jël diine ji leeral ko tas ko àggale ko ci ñëpp kon woote bi lislaam la boo xam ne mi ngi ko wéeroon ci dundal sunna ndax lislaam ku ko woote te woote woo sunu dem jaare ko ci tasawuf mi nga xam ne nag day sellal ay jëf ba lu waaye def ci lu baax yàlla nangu ko dañoo xam ne ab daawa la boo xam ne islaamiya la sunniya la suufiya waaye nag bu matalee jaamiha boo xam dafa mel ne li tasaaroo woon ci kër yu baax yi moom lañ ko jox ndigalul mu dajale ko li tasaaroo woon ci kër yu baax yi kër yi ne ci yu baax yi ne woon ci kër yi la dajale ngir nak wara nek ku kuutaatu yonent alayhi salatu wassalam ci kaw suuf di doxé ne yonent islam don doxé waye di jotli lam don jotli lolou nak ma nga xewé ci Mbàkke kadior ci ben 1300 wala 1301 fana girum nyar ci wax yi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci wéru ramadan bi tax kilifa yi bëgg ñu fatali ko la xey wax ne ku fi am jang rek indi won na nga seeti fen foko dafay waye ku bëgg liñ bëgg nak and la ñun lu lolu moy seigne mamour xam na ne jang taxut a ni jang na ba lef teewut muy def ay safaan sëriñ bi nak am ndigalul nit ñi la yonent ay saam doon daf di jangal nit ñi alquran di sol ci seeni deun waye diko def ci seeni cër ba nit ki bu ñu alquran lay jëfe boo waxee ñu xam ne alxuraan lay lay waxee ndigal loolu la amoon bu lemate ci sol nit ñi xam-xam waaye daf ko ci seeni cër ba koo gis ci ci njaboot ay yëngoom yënguy diine lay doon ci la waxee nag wax jooje ni ko sëriñ Mad Lamin waxee wax ne ba mu ko waxee ñu bari ci newoon ci daara ja te xëy na dégg guñ li mu doon wax dañoo dem ne ñoom jàngaleen fenn woon kon dañuy jàngi donte sax ñu bari ci ñoom ginnaaw bi ba mbir yi leer dellusiwaat nañ ña desoon di ñu néew mu ànd ak ñoom nag tàmbali dund woote bi kon Mbàkke Kajoor la xewee njàpp mille trois cent la wala mille trois cent un mën na nekk mille cent ci mujj ko kon weeru koor ñaar fukk ak juróom ba mu ci mille cent un nag mu ànd ak ñoom nag tàmbali liggéey bi dëgg-dëgg yi woote bi ndax wax na ci ay barab yu bari ne assassine la tàmbali liggéey kon mën naa am ñetti weer yooyu moom mooy waajtaay wi ak doon xamal nit ñi lim nekkoon lu mu doon bi xarnu bi tàmbalee nag mu tàmbali ñu bàyyi xel ne boobaak léegi téeméeri at la ak ñeent fukk ak benn sëriñ bi samp fi ndigalul yàlla loolu jëmmalaat lislaam nam na ko islaam wàcce woon ci yi lislaam am mooy li mu waxoon ne euh, imaan la ak islaam ak ihsaan bu la neexee nga ne tawxid la ak fiq ak tasawuf ñett yooyu mooy diine xaaji diine sëriñ bi wax jàngal na ko ba tàyyi ñett yooyu la woote bi nag kon ci ñett yooyu la ko taxawal kon anwut lu bees wala diine wala leneen lu mu indi daa fekk yoon yu fagg fënd am ñu jaaw ñuy jaawale mu ne leen fii la li manqué woo nit ci daara ji mu ñëw mottali ko mooy daara ji xam-xam daan na fi am naam ñu jàng alxuraan di ko mokkal jàng téere yi ba jàkku waaye nag ndax daan nañ ko dund dëgg-dëgg naam am nañ ko doon dund waaye tasaaroo wutoon moom nag ndigalam mooy ku génneeti ci daara ji li ne ci dënnam ci alxuraan ak xam-xam na ne ci ay cëram ndigal lañ ko joxoon kon bu defar nit dañ koo santoon sëñ euh, sëñ bi mu defar nit ñi ci turu diine diine mi nga xam ne moom la yàlla andi ngir mu defar nit ñi ndax bépp tëralin bu bu diine rek mënta defar nit diine rek moo mën a wan nit aw yoon ñu ne ko nag diine jooju yóbbu ci nit ñi loolu ci ay barab yu bari wax na ko leeral ko wax ne allahu rabbi wa hudal islaami diini wa afdal wara imami wa bi kitabihi wa bil bayti dalil wa qiblatan li gayriha lastu amil kon ma ne moom lislaam ji yàlla wàcce woon moom laa ñëw di ko yeesal si sunna it laa bëgg a leeral kon li may def lépp ci kaw sunna la ndax dañuy wax ne ku jaamuwut yàlla ab yéefar la waaye ku jaamu yàlla te tegoo ko ci sunna it ab mubtadi'a nga ku jaamu yàlla boole ci leneen mushrik la li ñu sant mooy jaamu yàlla rek te teg ko ci sunna ñett yooyu la fii yàlla rek teg ko ci sunna ndax ku jaamuwut yàlla yéefar la ku jaamuwut yàlla rek mushrik la ku jaamu yàlla rek te jaarewoo ko ci sunna si yonente bi mubtadi'a la ñu toppatoo bi daal yooyu benn mu ci solo sëriñ bi nañ ñëw ngir bëgg nit ñu doon ay jullit tigi di jaamu yàlla rek rek waaye jaaree ko ci sunna si yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne nasaafatuhu kulli na allahi taharat wa sunnatahu insha insha rabbi ubayyin sunnaam dong dong jàng làkku arab xam nañ ne jiital gi li muy jëriñ sunnaam dong dong dong laa fi ñëw ngir leeral si ko kon loolu mooy li mu doon woote di woote boo xam ne ni ma ko waxee léegi dafa matale woote bu matale la sëñ ma Mor ci mboolem yi tasaaroo woon ci yu baax la dajale ci wàllu diine ci wàllu xam-xam këri xam-xam yépp nee na samay samay sëriñ lañ ay mati fil fiqhi malikul ali wa shadali wal xanif al xambali ci tariixa mboolem ñi doon sóob nañ ci yoonu yàlla ñëpp ay sëriñam lañ mashayix yi al jilaani wa shadali maahu tijaani téere yu baax yépp ay téeram lañ tawaalifa saadaati ujaddidu naasixan li wajhi alladi ala midaadi wa mirqami kon moom yu bax yi fi newon la dajale ba tax sank ni ko mbok yi waxe lepp lu bax yoonu yu yep ku ñew ci kër Sëñ ba fekk ko fi yoonu yu yep loolu la sëñ bi doon wootee sëñ Maam Mor euh sa Oustaz Sëñ ma sha allah amna na solo lool dañ ko dag sax waye xamna ne buñ ko baye won mu gëna ki waye waaye wax lepp rek mi ngi tënku ci ñaari baat yi mu wax moy sëriñ bi dafa ñewon ngir yeesal diine l'islam rek mission bi mu amone it moy defar nit ñi ci turu diine li mu wax lépp mi ngi tënku rek ci loolu bu ñu waxee diine nag wax nangul ñëpp wax nangu lépp lu baax wax sóob nit ñi ci ñu sóobu ci li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon woote si euh, kon docteur Abdou Lahad Sané xam naa ci yow laay ñëw woote bi Oustaz Sëñ Mbacke wax nag muy wo mission bi nga xam ne sëriñ bi moom la amoon ngir ñëw defar nit ñi ko am mission bu defar faaw nga am loo théoriser maanaam dana am wet goo xam ne ca nga yaxal nag doxin ak gisin bi nga xam ne moom nga fas yéenee sóob ñi nga ñi nga àndal loolu mooy wetu xam-xam gi nga xam ne sëriñ bi bi mu ñëwee it bi mu wootee woote bi dox na ca jéego yu sore sore sori kon ci wetu xam-xam kook lañ bëggoon nga dikkal ñu ci ci sëriñ bi nag euh, lim liggéey ci xam-xam ci laataa muy wootee woote mbi muy waajtaay wi ak bim ko wootee ba noppi bismillah <coughs> alhamdulillah <coughs> euh, ba wàll woowu mooy li sëñ Mbàkke wax léegi mooy ni sëñ bi dafa woote wooteem bi it dafa am ci ay keno yoo daf alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam fi dara lu sosul dara dafa fekk yoon wi bari ay pakkatal bari ay dégg mu ñëw raxasaat lépp ba mu ci alquran ak ci sunna Euh, loola nag tax na yoon wi mu xàllaloon boppam mu doon yoon woo xam ni mooy mën a setal yoon wi yonent bi rëddoon da koo teg ci xam-xam xam-xam boobu nag mooy xam-xam yi fi nekkoon rek di xam-xami lislaam ndax dëgg la xam-xami lislaam bari na waaye dañu gën a ëppante solo gën a doonante priorité motax la yonent bi defoon mu don priorité ci xam-xam yi sëñ bi dafa ñëw def loola mu don priorité ci la am njàngaleem xamni ni don support bi jëkk wi nga xamni ni wi di di ak yeesal l'islam ci support ba la teggu te moy xam-xamu tawhid borom xam-xam yi ci bi talif tambalé ci liñu gis ak bët tay xamni ci imam Malik la tambalé ci fiqh borom xam-xam yi fi jaar ku fi ne ku fi jaar rek am na ci wàll woo xam ne ci nga gën a màcc waaye moom defar nit moo ko taxoon a jóg moo tax wàll yooyu yépp fu ci nekk mu jël fa la fa gën a am njariñ tënk ko def ko mu doon keno yoo xam ne wooteem ca la tegu mu jiital ci tawxiid boo xoolee la mu bind ci tawxiid daanaka ci xeeti xam-xam yi daanaka moo ci ëpp ci li ñu ci gis wala sax ci liñu ci ci gum ndax toll na ci fukki téere ak benn comme ni ko sunu mbokki daara yi nekk Maroc di ñoom euh, sëñ Maam Mor dajalee ca diiwaan boobu la fukki téere ak benn yoo xam ne lépp tawhid lay jàngale ku ko gis man nga jàpp ni répétition la te fekk lu ci nekk rek dafa am marxala boo xam ni étape boo xam ni ci la ko bindoon bind ci tawhid lu bari euh, lu mel ni mawaahibul quddus xam ni moo ci gën a bind na ko mu doon téere boo xam ne incha allah danañ ci ñëw eh, ci ñaareelu tuur bi waaye it bindaat lu mel ni faydul xaniyul muxni xam ni mawaahibul quddus boobu toll na ci juróom benn téeméeri bayit ak juróom fukk ci xamle rek luy pas-pas bi jullit bi war a pas ci digganteem ak boromam ak yi ko boromam sant pour mu fas ko ndax pas-pas du pas-pas ci yàlla rek dafa am pas-pas ci yàlla pas-pas ci yonent bi pas-pas ci malaaka yi pas-pas ci téere yi pas-pas ci dogali yàlla yooyu yëpp sëñ bi tënk ko jàngale ko ci anam goo xam ni mbooleem li nga xam ni moom la aimmatul achaira yi waxoon ci buntu boobu sëñ bi tënk ko ci juróom benn téeméeri bayit ak juróom fukk te mu doon lu bari ndax xam-xamu pas-pas daanaka dafa bokk ci xam-xam yi gën yi nga xam ni taxu koo yaatu lool ndax dafa nanguwut ay xalaat dugg ci wàllu aqida nanguwut ay xalaat dugg ci looloo tax néew na nga gis ci téere bu yaatu lool ay yu gàtt rek lañ ciy bind waye sëñ bi nak lépp lu ko jitu won dajale nako ci mawahibul qudus bind yit lu melni ni faydul xaniyil mughni fi nazmi ma ani suluki yughni kep ku beug dem ci yàlla xamni ni yoon wa ngay jaar bu pass pass jitu wut do dem buntu ba dañ koy fat ndax rasul amri al iman billah comme niko ko bi sallallahu alayhi wasallam sallam waxe woon mu bindat lu melni ni faydul xaniyul mughni lolay étape la won ci ba koy bind bind ci ci gàttal temps bi du ñu may lépp waaye bind na ci daal fukki téere ak benn yoo xam ni boo dajalee bayit ya ca nekk toll na ci junni bayit ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent ci loo xam ni lépp ci pas-pas la nga xam ni kon mooy support bu jëkk bi nga xam ni ci la tege wooteem wii nit ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tege woon wooteem ci supportub tawxid ndax ku dellu ci histoire yonent bi da fekk ni fukki at yu jëkk yëpp wooteem lépp ci tawxiit la woon fukki at benneel bi ci la julleeg yu mel noonu dugg si sëñ bi nag dafa jox tawxiit yitte bu toll noonu moo tax mu bind ci lu baree noonu e, bind na yit ci fiq loo xam ni du jaas cib mu kallaf bu bëgg soobu ndax moom dafa amoon e, doxin ci wàllu sulóog mooy ni koo xam ni jàngut xamut dara Euh, pour mu mën a suluk la budda mu xam nécessaire yi bu ñu waxee ni mu xam ay nécessaire yi ci ci wàllu pas-pas xam ko ci wàllu jëf xam ko ci wàllu jikko loola tekkiwul ñu dafa war a jàngi force waaye nag nañ ko ca yar tàggat ko ca ba mu xam ko moo tax mu am yu mu ci tënkoon ci wàllu fiq yu baree baree bari bokk na ci ba ca gën a fës lu mel ni aljawharun nafis kon fiq bind na ci ñeenti téere ci yoo xam ni móolagum nañu ko ak ci yi nga xam ni xam nañu ko eh, mu doon yoo xam ni doy na ci jullit bi mu xam mu xam téere yooyu ci mu mën a dox daagu dem ca yàlla eh, ndax moom dafa amoon principe mooy ni la balaa ngay tasawuf laa bu da nga ko comme na mu ko waxee ci masaalik toxale ko ci imam malik képp ku sóobu ba nga doonub suufi te fekk fiq jiituwul ci yow eh, bu boobaa boo moytuwul da dugg ci ay ndëgg sërëx ak dérapage yoo xam ni kenn du la ca génnee te lu dul fiq rek la cee génneewaat moom loole la gëmoon moo tax am njàngaleem nga gis ni tawxiid dal di cay teg fiq bu loolu loolu it mu bind ci ay téere yu bari waaye la ca gën a fes gën caa siiw mooy aljawharun nafis ak silaahu ahlil xawf ak nahjul xaqiqa naka noonu sëñ Mbàkke junj na ko sànq ci li mu tegoon wooteem muy al iman wal islaam wal ixsaan ihsaan jooja it mu bind ci lu bare bare bari bokk na ca it la ca gën a yaatu muy masaalikul jinaan nga xam ni eh, boo tàmbalee ca Junayd ñëw ba tey la fi jaar ci ay téere yi tasawuf la mu dajale ci téereem bii néew na nga fekk ko ci benn téere ndax fu ne la jëlee dëgg la pour nga mën a am li li ne fii da ngay dellu ci ay téere yu baree bari pour mën a mën a dajale la mu dajale ci masaalikul jinaan Eh, ndax tëgg na ko ci junni bayit ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett nga xam ni lépp wàllu jàngale tasawuf rek la daanaka xaw naa peeg tasawuf la nga fay fekk doo ko beeg fi doo ko fekk fenn mujtamiatan fii kitaabin waahid dajaloo ci benn téere kon loolu xeetum jàngale la ba ca loola nag ba mu weesoo mu dajalewaat ñetti xam-xam yépp ci ñaari téere muy tasawudu sixaar eh, man damay wax ni wal kibaar waaw kon dajale ko ci téere boobu dajale waat ko ci tasawudu shubaan nga teg ci wa suyuux kon ñëpp rek mu tënkaat ñetti xam-xam yooyu ci téere kon am njàngaleem dafa leer ndax dafa mën xutta boo xam ne da ko rëddoon jaar ci te mosu koo teggi benn yoon incha allah jërë ngeen jërëjëf euh, docteur Abdou Lahat kàddu yi am na solo lool te tënku na kon loolu yëpp liñ ciy déggee mooy sëñ bi woote bii mu woote xam-xam moom ci ponk yi la bokk te loolu sëñ bi waxal na ko boppam الأمور على ثلاثة أقسام العلم النافع والعمل الصالح والأدب المرضي نمبرمي نترك لا بمشي نجك تدو موي خم خم بو أمجرين جف جباخ أكي تاجم تيري سرين عبد الله دي واخد أبطان تلو تي ديجي بو خم نسرين بيكو ديجي وان سرين بي بمني بريت لبندون ني سما واكر يب ديجل نالين ننجم خم لجي سن ديني ne loolu ma leen digal nag warlul naa leen ne dinaa leen bindal taalif واني تكفلت لكم ولكن بتوالي فيكون فيها جميع ذلك كون لام واخون ني لام ديغي وون ديف نكو بين ديغلو لي سيغ بلاد واخ تي اب جونجو لا رك سي ليغا خامني سيرن بي داليف نكو خامنا كون داماي نييو سي سيغ احمد نك لي سيغ آه، دكتور عبد الله دون واخ موي لي سيرن بي جانغلي nga ñëwal ñu nag ci sëriñ bi num daa tarbiya mooy lii mu daa lii mu bind ci téere num daa fu mu daa jaar nag ba gaañu di ko jëfee jërëjëf sëriñ Mamour jërëjëf Baye Serigne ak Cheikh Abdoulaye docteur maa ngi leen di delloo jéglu bu baax a baax euh, si Cheikh Ahmadou Bamba radiyallaahu anhu ni docteur waxee léegi rek du lum sos lu fi nekkoon la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa ko jëfee diggam ak saxaaba yi mu ñëw nag donn ko ci loolu moom it di yonente bi digal ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi maanaam mooy li alquran di tudde tazkiya معنى ممتع القرآن صدقني جهاد جهاد وجاهدوا في الله حق جهاده والذين جاهدوا فينا أيين خامن نك مدينة لعنة خامن مكة لواج جهاد بوي جهاد في الله لولو بروخام بدنا خامن موي ما جهاد نفس رك أجنيت كنا لا يدفع با جان كونتك بابام تغطو بخلم سل روحم سل غير ممانا كي ممت القرآن دكتور ده لذلك تزكية بس دين سودو مام إبراهيم عليه السلام moo ñaanoon rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa yuzakkihim moo ko ñaanoon yàlla wàccee fi koo xam ne da leen di jàngal di leen tëskiya tëskiya foofu la mujjee waaye suñu borom bi mu nangoo ñaan gi wàcc sayyidina muhammad tëskiya bi la jiital moo la xamul solo si ndax dafa wax ne laqad manna allahu ala almuminina id baata fihim rasula min anfusihim yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma loo ko ñëw taskiya boobu nag mooy defar nit sellal ko sellal bakkanam loolu nag sëriñ bi am na yoon wum ci daa wum jaar boo xam ne ku mësa ñëw ci moom la la jaar loolu nag yoon woowu ñu ngi ko tànqe ci li seex Mouhamadul Basir bind ak seex Mouhamadul Lamine Diop Dagana ak lenn ci mbind sëriñ bi gàttal gi nag mooy képp ku mësa ñëw ci moom xam-xam lay jëkk ak yow sëriñ bi su dafa wax ne awwalu maa yaxuduhum bihi maa li muy jëkk yow mooy jàng loolu xam-xam jàng moom mi nag seetewu ci woon kenn waaw ku ñëw dana la jàngaloo xam-xam xam-xam yi ni nga ko waxee dafa warlu woon taalifal leen loo xam ne danañ ci mën a xamee seen dine cheikh euh, sëriñ euh, euh, cheikh mu sëñ Muntaqa wax na ci téeréem boobu wax ne maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu ñëwee sëñ bi risaalatu ibnu abi seydin moom la ko sëñ Tuubaa njëkk jàngaloo wax na sëñ Muntaqa moo ko net li jëlee ci sëñ seru kon njàng moom surtout wu ci woon kenn ku ma saa ñëw rek dana dugal ci jaara ji ngay ngay ngay ngay jàng boore koog nag liggéeyub euh, bi nga xam ne day defar yaram tàggat xol dugal ci yow jëmbët ci yow li ñuy wax ak woyof mooy al amalul badaniya loolu it mooy ñaareelu mbir mi nga xam ne ku ma saa ñëw dana ci jaar ak yow ci gàttal rek ñetteel ba mooy euh, sëñ Basiru nee na wala Cheikh Mouhamadou Lamine Diakhou sax moo ci gën a leer mooy alhamdu ala dikril kathir ma tudd yàlla gu bari ndax moom dara wax ne murit bi genn dund la war a am aw ñaamam wenn la war a doon muy tudd yàlla xayru taami lil muridi saliki dawaamu dikri dil jalalil maliki moo ta sëñ Mouhamed Lamine Diop da wax ne ñoom bi mu ñëwee da leen a jaare ci yoonu tàggat leen ak ñimeb xiif ndax dara sëñ Tuubaa dara wax ne murit bu fekkee day lekk-lekk gu bari malayka buñ gisee murit boo xam ne day xewlu xewlu gu bari dañuy jooy ngir yërëm ko xam ne kii du àgg ci la mbëgg wa wa axbaru anna na aljalil tabki ala al muridi in kaana akul moo tax da leen tàggal ci ñimeeb xiif ak ñimeeb ñimeeg weetaay ak ñimee tudd yàlla gu bari ak moytu jaxasoo rawatina nag diggante góor ak jigéen loolu da ko daa moytulu bu loolu itam bokk na ci lam ci daa teg mooy fatmu nafsi sëñ Bachir wax na ko fatmu nafsi mooy dëddloo la nga feral sa bakkan ci mboolem xoy-xoy yi yi fexe ba sa xol eh, maanaam maanaam da nga ciy génne adduna adduna dañ Sëñ Tuubaa daa wax ne dañ koy jëfandikoo waaye kenn du ko tàbbal ci xol xol bi moom yàlla rek moom nga cee moom nga moom nga cee dugal bu ko dee ngay feral sa bakkan ci xoy-xoy adduna yi moytu bëgg daraja moo tax ak woyof ci murit la bokk ak bëgg alal na bëgg alal gu sax ci xol loolu sëñ bi da ko daa teel a dindi ci ñoom ak itam di leen digal waxtu nañu nuuru ci jëf yu baax nga xam ne seen jëf yëpp dañ ci yéenew yiw di ko wax di ko jëf ci lépp nag di nattale seen lépp nag ñu dëppale ko ak sharia loolu sëñ Basiir wax sëñ Basiir neen loolu buñ ci saxee day àgg ak ñoom nag ci digg def li fahmul musawat fahmul musawat mooy di jataay ak ñoom di leen leeral ni eh, nit ki li muy gën nit lenn la mooy ragal yàlla gën koo ragal yàlla waaye du aw askan du leneen id akramul ibaadi inda allaahi aktharuhum taqwan bila shtibaahi wala Sëñ Tuubaa moo tax Sëñ Tuubaa dafa fekkoon ay ay ay ay classe sociale yu fi amoon lu ñuy wax géer ak ñeeño ak jaam loolu ay classe la yu fi amoon waaye ci biir ñi sëñ bi yar classe yooyu jeexoon na ci maanaam da koo dindi woon ndax da leen daa boole ci ay sëy da leen boole ci ay liggéey di seet liggéeyee ñee daa def ñu mu di ko defloo ñi ñi nga xam ne ba xawuñu woon jàng mu leen di jàngaloo bu mujj classe yooyu raaf ci biir murid gi ak ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi sëñ bi yar boole ci nag teggin nag jëfandikoo teggin ci lépp ndax ti Tuubaa dara xam ne teggin ñaar la am nañu dox sa diggante sa borom yooyu leeral na ko ci Masaalikul Jinaan waaye am nañu dox sa diggante ak mbindeef yi moo tax mag ñi da leen daa yar ci ay teggin da feeñ ci seen lépp ci seen wax ci seen i jëf ci seen i yëpp maanaam teggin mu wërta yam rek ci sa jëmm waaye dafa war a feeñ say wax war a feeñ ci say jëf war a feeñ ci axwaal yi nga xam ne yaa ngi koy woote ci sa bopp sax teggin war na ca lu ci ne itam sëñ bi jàngale na ko sëñ bi dara wax ne teggin mooy maye yàlla dara wax ne yàlla yi moo lay may àjjana waaye yàlla nag boo ko bëggee am teggin eh, moo la moo la ko may loolu wax na li an annahu bihi ila rahmaani yasilu abdun wa ilal jinaani wax na ne diine buñ ko xaajoon ñetti xaaj ñaari xaaj yi teggil la loolu mooy kon lim leen daal boo boole kook nag léeg-léeg mu jataay ak ñoom ci jataay yooye nag eh, la leen di jàngal dine ci ay tomb di leen ko jegeeñal di leen tarqiya di génne ci ñoom taxliya mooy génne ci ñoom mboolem sikk yi dugal ci ñoom mboolem lu baax laabal seen xol laabal seen xel def di leen suub nag ci jamul himmati alallahi seen yitte jëpp ñu dajale ko muy muy mu jëm ci yàlla subhanahu wa taala ak yu ni ok jërëjëf sëñ Ahmad euh, ñoo ngi lay sant bu baax tomb bi liñ ki leeral leer nañ luñ ci dolli rek da koy gën a lëndëmal léegi nag kon dañuy ñëw ci docteur Khadim Sylla euh, ginnaaw buñ ko nuyuwaatee di ko sant xam naa sëñ Khadim nag nga ñëwoon ñu ba léegi ci li ñu waxoon ne yoon wi almun naafi la amalu saalih ak adabul mardi almun naafi mooy li wax lii sëñ Ahmad wax ak lii ñu lay laaj loolu day dugg ci amalu saalih ak adabul mardi hmm. ñu bëgg na nga waxal ñu ci mbokkoo gi war a dox ci diggante jullit ñi ci seen biir. Mm-hmm. lu ci sëriñ bi jàngale ak lu mu ci jëf. bisimilah eh, <coughs> jërëjëf euh, <coughs> sëriñ Mamor ñu ngi sant bokk yi jiitu yëpp. xam nga sunu borom subhanahu daf ñu xamal teel a xamal ni jullit yi ay bokk lañ. kon nag fépp fu ñu nekk nañuy jëf ak a wax luy rafetal loolu ñu bokk. waaye lépp lu ñu nekkit nañuy fexe bay jëf ak a rafetal loolu ñu bokk innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum ki yàlla yónni ci nit wax ne laa yuminu ahadukum xatta yuxiba li axii maa yuxibu li nafsihi kenn ci yéen duñ nangu ne ab jullit la lu dut lim bëggal boppam yéene ko ko boppam da koo bëggal képp kum bokkal diine lislaam comme nak cheikh al khadim niko bokk yi waxe yittem moy yeesal loolu ci dund ko ak dundal ko loolu mo taxan mu jox loolu yitte ju mat seuk waxan ne ci bir jullit gi wax ne fal ulama muwaxiduuna humaatu sharia waye wax ne wal aqtab mukhlisuna muxarabuuna dhabuna ar aqiqa dini islam ñaar la jaamu yàlla gi nga xam ne dafa aju ci li feeñ ñu di ko gis muy ay jëf deme ni julli yu juróom woor weeru koor génne asaka aj màkk ci ku sart yi daje ci moom ak jëflante bi war a am sunu diggante ci jaay ak jënd lépp tege ci diine waaye beneen bi ci des mooy bi sëñ Ahmadu mujje léegi muy jaamu yàlla gi aju ci suñu mbiri biir defar sa xol ba mu sell ba doo yéene kenn ab safaan waaye yar sa bakkanitam itam mais defar say jikko ba mën a ànd ak ñëpp mu ne ñaar yooyu moo fi am mu ne nag jullit yi muy ñii taxawul lislaam ñaari kuréel lañ kii féete ci lii kii féete ci lii kon nag jullit yëpp lañ fi nekkal mu ne kon nag faxtiraamul jami mutaayin kon nag ñëpp lañ war a wormaal ñëpp lañ war a jox cër ci biir loolu nga gis ne bi nga xamee ne yiy faral di teqale nit ñi mooy wuute ci ay ngir wala wuute ci ay tariqa mu ne yéen taalibe yi de bu dee ci wàllu ngir ngirum imaamu Malik laa leen tànnal waaye nag teewul man mii seen kilifa de ñeneen ñetti ngir yi ci des yépp seen borom dama leen a def ay kilifa def leen ay sëriñ ba tax na ni ngeen wormaale imaam Malik mi ma leen booleel na ngeen ko wormaale ñeneen ñi ci des muy Abu Anifata imaam Shafi Ahmad ibnu Anbal أرماليت سيني جبر أك سيني تالوبي تي والو طريقي موخني وكل ورد يريد المريد لحضرة الله ولن يحيد يونو غوري يالي بوچي جل موي ورد ووچي جل تا سامون تا أك دانا لو أمد با أغلالي تيالا وينتما إلى الجيلاني أو وينتما لأحمد التجاني aw li siwa uma min al aqtaabi iskullu uma qataan ala sawaabi moo xam wirdu Seex Abdou Xaadir Jilaani la wala bu Seex Ahmad Tijaani yi wala kaneen kudul moom ci góor yàlla yi ndax kenn ku ci nekk ci siraatal mustaqim nga amoon nekkan wa kullu um yadul muridina ila taati rabbil arshi xaysuma jala kenn ku nekk sa yitte moo nekkan woo nit ñi ak wommat leen jëme leen ci yàlla bil istiqaama ba noppi tege ci siraatal mustaqim kon nag falaa tasxara kon bul suufeel kenn bul xebet kenn bul diigat kenn ci moom wala tunkir alay ibul layaat liñ indi ci ay programme ak façon yariin bul ca weddi dara wëlbatiku nag jël loo xam ne ñëpp la ko boole muy wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah kon nag képp ku ngeen dégg gémmiñam di tudd baatu laa ilaha illa bu leen ko noonu waaye loolu lépp mu xam ne nag lu mu bëgg la waaye bu nu ci yàlla dimbalewut du yomb mu jàkkaarloog borom ne ko wa awrina bi xubbi kulli muslimin wa najjina min sharri kulli mujrimin na nga nu xiirtal ci képp kon bokkal di wax la ilaha illallah lépp lu nu yéene suñu bopp nañ la ko yéene lu nu bañal suñu bopp nañ la ko bañal waaye loola nag lii mu santaane daf koo dund nag du lu mu santaane rek wax waye xam ngeen ne lu jiitu muy wote wotem bii bokk yow ñëwoon nañ ci dafa wax ne lu jiitu may jóg fa jultu baynal ulama wal awliya bi niyati wa amali wa xawliya fépp foo xam ne fu ku baax nekk ak lu baax nekk sol naa sama dàll ba àgg fa bu ma demee danaa waxtaan ak ñoom ci lépp loo xam ne luy defar li nu bokk ak lu koy sàmm danaa jëflante ak ñoom ci loolu wëlbatiku feeñal loolu bu baax a baax xam nañu ne histoire nettile nañu no bi mbokkam mu baax mii di maam Cheikh El si nekkee njaar te feggoo ak sëñ Cissé Touré bàyyi si jihaad at bu jot wax nañ ne lu gàtt-gàtt daana fa dem def fa ñaari guddi yoo xam ne dañuy yendoo waxtaane ci lépp looy defar bokk gi ak luy aar l'islam bi ak luy dundal sunna ci kaw suuf ba barab bañ doon defee loolu toog naa sëriñ Ibra ab sëtu bii seenub sët doomi Cheikh Moustapha mais soxna ab sëtu moom sëñ Cissé Touré moomee muy wax ak sëñ Maodo Touré ne ko danaa defaraat ren barab boobee bu noppee nag dama bëgg lafa mag ñelaan daan dajaloo di ko def ñun ñu ko fi wuutu ñu continuer di ko def ndeysaan yàggut mu génn àdduna noonee moo ko doon def itam eh, xam nga ne Sidi Khoya ci waa xaaj Seydi Xuya Kunta bu bu ndeer noonu la daan def ak moom di fa dem di fa am ay fan di dundal bokk ki ba am na ci njabootam muy soxna Mariama Kunta rek Cheikh Mouhamadou moom la ko noone noonu itam bi mu nekkee Mbàkke Bari xam nga tubaab yi bind nañu ne moom day kër gi daal moom day kër xamul li muy wooteel la ndax nee na bu wasifa jotee tiijaan yi lal seen balaa nu wasifa bu sikkar jotee xaadir yi def noonu naasiri def noonu jaseli yi def noonu parce que li ko waralan góor euh, góor góor saane góor gi maam góor saane ñang ak alaaji daawuda ja mbalaxe ak way juróom ak mboolem nit yàlla yi nekkan foofu yëpp dañ daan da daan nemeku ñuy bàyyi seen kii di fa ñëw di fa am ay fan mu yëkkati ay teraanga yu baree bari ci tabaski ak ci korite di leen ko yónnee ñu dul dund seenu bokk seen diggante ak Mauritanie gis nga ko kër Seex bu gii tey ñu di ko wax Daaru Rahman moom la ko tuddeen mais Daaru Naar lañ ko tudde woon ngir e, jullit yi nga xam ne ñoo fa daan ñëw bàyyi ko fenn fu nekk ci tariqa yu Chazali Nasiri ak ñun ñëpp kenn ku nekk muy jëflante ak yow ci lépp loo xam ne luy sàmm ak defar e, bokk kii nga xam ne moom lañu seqal jërëjëf jërëjëf docteur Khadim eh, am na solo lool ci ni nga ko leeralee ne sëriñ bi kon jullit ñëpp rek ay mbokkam la leen jàppe woon loolu la jàngal waa këram waaye lim li nga leeral nii li ci siñ bi jëf sax moo gën a yaatu fuuf lim ci wax waaw maanaam lim ci pratiqué moo gën a yaatu lim ci théorisé loolu lépp mën naa tënku rek ci bayit bi sëriñ bi wax ne al muminuuna ixwati wal muminaat lii axawaatun wa xayaati xasanaat dëgg la ne jullit ñëpp samay mbokk laa leen jàppe ku ci góor ak ku ci jigéen mbokk nga ci man dëgg la euh, kon jërëjëf sëñ Xaadim kon dañuy ñëw nag ci Oustaz Sëñ Mbacké Abdourahmane ci ñaareelu laaj bi muy woote bii sëriñ bi woote nag nekk lu universel maanaam loo xam ne àdduna sëpp mën nañ cee jëriñu amuk universalité ci ñaari anam yu wuute ci wàllu espace ak ci wàllu temps ci wàllu espace ndax woote bi sëriñ bi woote fii ci Sénégal jullit ya nekk France wala ya nekk Amérique wala ya nekk feneen mën nañ cee jëriñu waaye am nag universal tam ci walu temps ndax sëñ bi bim ko wote ak léegi man na témir at ak ñeent fukk te ba léegi lolu mi ngi bax ngir jowa jamono ci lolu nak lañ bëkkon nga dëkkal ñu ci ci juróomi minute incha allah jërëjëf sëñ Mamor ñi ngi rafet lu bax mbokk yi kàddu yi amna na solo lool allah khairan waye lolu fofu sëriñ khadim docteur khadim daanele moy jëmmal loolu mu wax lu ñëpp bok ginnaaw moom mbokkum ñëpp kon li yor ci ñëpp lu jëm wote bi liko lal mo jëmmal ne àdduna yëpp ku bokk ndax wax na wax nañ fii léegi ne bu fekkee ne ci wàllu wàllu diine la fiq xam-xam mm-hmm. mbooleem ilimaan yi ilimaan yi ay ilimaan ay sëriñam lañ mm-hmm. kon ngir moo ci mën a bokk yit daqut nga nekk ci nga nekk ci yoonu murit nee na it mashaahib ay mashaahib lañ foo ci mën a bokk yit ban nga cee bokk xam nañ fii sànq ñu ko doon waxtaane mm-hmm. wér de yëpp ku mën nañ la limal koo xam ne taalibu Sëriñ Tuubaa te mi ngi koy wérd muy tijaaniya xadriya chazaliya ak nasriya mi nga xam ne bànqaas la ci biir xadriya yooyu yëpp tey am na ñoo xam ne sëriñ bi moo leen joxoon ndigal la ñu di ko jëfandikoo ak ñoo xam ne sa joxu leen benn ci yooyu mooy kon li sëriñ Xaadim docteur Xaadim faral di wax ne bàmba ji ñëpp a ngi ci biir képp koo xam ne daa bëgg yaan ci yoonu wérd boo dikkee mu jox la wérd ku ne alxuraan ak sun ci laa bëgg a yem wérdu alxuraan mi ngi fi am na ñoo xam ne lool leen doyee ci leen doon liggéey kon loolu day firi ne ñëpp ko bokk dama koy misaal man ne sëriñ bi ab docteur la yor ay garabam di faj malaat bu ñëw sa jàngoro la koy faj mayee moom ñii seen jàngoro ci liggéeyloo leen dañoo dañoo tayel ñii dañoo umpul yàlla euh, seen seen bëgg àdduna jàpp leen ñii dañoo naw seen bopp xeeb ñi ci des lu ci nekk ay jàngoro la ku ci nekk sëriñ bu dëkki am na yoonum lay teg ba nga saafaraw loolu moo tax muy woote boo xam ne ñëpp la xejoo kon ci wàllu euh, bu dee bërëb Mbàkke Kajoor la ko wootee de waaye adduna bépp ko moom bañ na ko bu suy wax jul ñëpp lay waxal euh, bokk na ci lim doon wax kunu muhibbina al xuyura li jamii xalqi ilahina al muqaddimi al badia maanaam na ngeen bëggal yiw waxut sax ay nit xalq la wax maanaam mi def yàlla yi mi fi yàlla yi mala yàgg jamaa daal yëpp ci biir na ngeen yéene yëpp ñëpp aw yiw kon mooy woote la boo xam ne euh, sëriñ Mamor doon gum doon ngir àdduna moom du lu ñuy nattale ku xam li ko lal da ko warante xam-xam bu am njëriñ la wax ilmu naafi xam-xam bu am njëriñ xam-xamu diine ci jiitu ak barab ba nga nekk luy tax barab ba dund wu ne xam-xam bu am njëriñ la foofu al amalu salih jëf ju bax la jaamu yalla ci jitu ak fi nga nek lu barab bobu laaj ngir nga dund ko yow al adabul mardi it teggin ñu gëreem sa diggante ak sa borom ci jitu waye barab bo nek bu ni amna teggir ñum laaj yo xane boko samonté ak mom mëna dund day melni ñett yoy mu ko wat muy al munafiq al amalu salih al adabul mardi moy jëmmal ne bépp barab mën nañ ko fa dund waye moy jëmmalit ne jamono yëpp la Sëriñ ba woote wutoon ngir ab digënté mu jeex ndax l'islam dafa ñëwoon ngir aduna te l'islam jooju la jë la kon da ko yeesalat dindi galankor ci newoon ak tak tak yi newoon ci yoon yi bam mu mu ne kay leen sobu loolu nak jamono yëpp la xeyna limi li rek moy jamono ju ne sa bu tak taq naree ñëwaat war na am ñëwaat fa señ bu jaaroon ñu bëgg jëm fa jaaraat la la ci wat ndax li li ki mbokk yi doon leral léegi bi bari lu fi won xam nga sëriñ Ahmadu wax na ko sànq nee na caste yi am nii sëñ jële woon na ko fi kon bu dee ba jamono ay nit bëgg ko delloosiwaat kon waris naa jógaat gob ba sëriñ bi jëloon jël gob ba xeñtu mbooram ci feex ba jël dellu jëlaat ko fi loolu mooy wane ne jamono ju ne ak waxtu ne man nañ ko fa dund kon woote la boo xam ne euh, kenn du nattable ne daawa alam yële moom ndax amut jamono ju koy tënk juñ ne bu jamono sàngam jotee li sëñ bi doon woote xew wi wala kenn doon ko soxla li mu doon woote ci nit ñi nekk ay benn yàlla kenn la ñun ñëpp benn la nañ àndoon yàlla jamono yëpp ko yëpp ko soxla it nag bépp barab boo dem tey loolu la ñuy soxla nit ñi xam ne benn buur lañ am li mu leen sant moo ñu jaamu ko sëñ Tuubaa loolu woote na ngeen xam ne yéen benn boo ngeen am ndigalu yàlla ci yéen mooy ngeen jaamu ko fu ñu mën a nekk ci àdduna la ñu doyee loolu kon saalix la li kulli zamanu makaan jërëjëf euh, sëriñ bi macha allah euh, kon leer na ci wax ji ne sëriñ bi lim doon woote. jam ñëpp la ko woteel te feeñ na ci mbindam ci barab yu wuute wallahu yansuru nii wal xalqu tatbaaw nii fil barri wal baxri za nafin bila darari te ca ba muy jot ndigal la it wa inna bihi ximan wa mafzau zalika fadlullahi yutihi lazi yachaahu yachaahu wa qaala li xulbi luzi waaw suñ borom mi ko ne woon wooteel te xam ne nag yow làqukaay nga wéeruwaay nga nga loolu nag nit ñëpp ci bokk yam jërëjëf kon sëñ Abdou Lahat danga ñuy dikkal nag xam naa ci ba léegi ci anamu xam-xam mbindi sëriñ bii nga doon wax taalifa mi jagle yu mu am ah, yoo xam ne ràññi ko na ko ci njàngat gu gàtt rek xam naa juróomi minute. waaw bindu sëñ bi moom comme ni ko ñëpp xamee dafa am ay sima yu ci nekk ay simaat ay màndarga yoo xam ne mbindam lépp rek eh, dañoo bokk màndarga yooyu ba dees na xame sax yenn ci ay mbind yu ñu dugal ci mbindam te bokk ci. des na ko xamee ngir nii ni màndargay bindi sëñ bi da caa nekkul euh, te loolu mooy fasaax ak balaaxa loola moom téeram yëpp dañ caa bokk yam lépp luy mbindam yaa xam wesar la yaa xam euh, nazmu la euh, gannaaw ba fasaax ak balaaxa gi weesoo comme ni ñu koy waxee saasu ne ay mbindam amut lenn lu mu bind loo xam ne da ne waa baax na de waaye bu ko defee woon ne mu gën a baax loola amul ci mbindi sëñ bi nu mu bindee rek noona la noona la gën a baaxee Euh, loola euh, ku mu yéem it moom moo njëkk a yéemu ci boppam ci loolu looloo waral karaamati xattu yadi bil mustafal mu ay yadi waaw mbindam da ko yéem euh, yegg na ci ci doon karaama boo xam ni da koo yéem moom ak karaama ya jaare ci loxoom yépp taggoowu ci ci benn lu dut ay mbindam ndax yegg na ci niveau yi fasaaxa ak balaaxa foo xam ni daanaka dara we dara féetiwu ko kaw lu dul alxuraan ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa Euh, chumuliya gi it mooy ni euh, dafa daj ci lépp lu mu bind bunt bu mu fëgg ci mbind daanaka lañ ca soxla bind na ko bàyyiwu ca dara loola ay mandarga la yoo xam ni ay simaat la yoo xam ni mbind sëñ bi daal euh, lépp da koo làmboo beneen bi nga xam ni it mooy ay mbindam yëpp dafa doon mbind moo xam ni haadi la dafa am objectivité ci li muy bind doonut woon di bind ngir di bëgg dafa bëgg wane xam-xam daawut bind ngir ni nit ñi ñu ngi bind naa bind ndax am na ñoo xam ne dañuy bind ci toppandoo nit ñi bind nañu man it naa bind moom bindam da daan tegu ci hadaf tegu ci objectif yoo xam ni wér la ci misaal bu ñuy wax lu mel ni mawaahibul quddus mu ngi ciy wax ni wa baadu fal ulumu afdalu tilaat wa xayru ma allahu bihi bihi abdan afaad lakinnama tawxiidu xayru zuxri للشخص في القبر ويوم النشر من أجل ذا سأل بعض الطلبة نظمي له لكي ينال مطلبه فقمت مسرعا على الجواب مبتغيا إعانة التواب لمتنك فرق موي خم جي جلت نيب خم ني توحيد مو اوب خيات خم خم يتي الإسلام وحي دفا توق بت اي اي اي طلاب اي طالبين مك نيت ني ساكو كو تي موم تك اي بندم تي ني دنكو اي bu gisee ni lii ñu sàkku ci moom lu am solo la jar naa na mu bind ci kon loola day wane objectivité gi nga xam ni dafa amoon ci mbindi sëñ bi beneen bi mooy dana gis euh, loo xam ni dafa tasaaroo te ñëpp soxla ko mu dajale ko donte du tegwut ci càkkutéefu kenn loola danga ko xool ci lu mel ni masaalikul jinaan ca fa muy waxe lakinnama kutubuhum li tuuli zahida fihi jullu hadal jiili فاخترت ذا استعانة بالوالي نظم الذي نثره اليدالي لجمعه جميع ما للسلف بكونه خاتمة التصوف la ñu bind ci tasawuf dafa bari yaatu tasaaroo comme ni ñu ko waxee woon sànq dajaloowul ci benn téere mu bokk ca la gën ca lañ ca bind la ca yadaali bind mu jël ko nag dajale ko jël la nga xam ni nekkul ci téere ba wuti ko feneen dugal ko ci téere ba ngir rek sumuliya gi gën a mën a daje ci téere bi loola bokk na ci ay objectif am ci mbindam bokk na ci xasaay si mbindam day bind ci objectif waaye it dafay bind loo xam ni gis na ni dafa tasaaroo mu jegeleel ko nit ñi bokk na ci ba tey bëgg jàppandal amaana lu jafe woon loo xam ni dafa fas woon euh, mu bëgg ko jàppandal euh, lu mel ni ci jawharatu jawharu al jawharu nafis ci fi mu ne hada wa inni wa inni wa innani saraftu hammi لعقد النصر الأخضري القرمي لكي يكون تحفة لكل من أراد حفظه من أبناء الزمن xam nañu ni mokkal wattu ay way moo gën a yomb wattu wesar te laxdar yi borom da caa tënk li nga xam ni eh, laa yasaul mukallafa jahluhu loo xam ni mukallaf bu nekk da ko war a xam comme dañ ko war a xam nag des ko war a mokkal sëñ bi dal di koy nazmu eh, donte aslu ba nasru la woon bokk na ci ba tey xeeti xam-xam ci yi mu bind ci taalif ci ay ay ay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee taggam ci côté bu mu gën a jëmee mooy lay tax nit ki lay attiré nit ki ci yonent bi ndax bind ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ay anam yu bari ñiy bind xasabal xawliyaat sard jaar-jaaram fi mu bi mu juddoo ya ca xew topp ko ba keroog muy génn àdduna waaye moom loola daanaka bindu ci bind moo xam ne mbind mu yaatu la dana ciy cof nag waaye xasaais bi de ci siira yonent bi ñi naan ko as chamail yooye la jël di ci bindam la ci ëpp ci yonent bi ci wàllu woowu la jas bu ci loola la la tax yonent bi gën ñëpp lu mel ni mawaahibu loola la lu mel ni raiya ci wàllu woowa la lu mel ni muqaddimatul amdaax ci wàllu woowa la ndax dafa am lu ñu war ci diggante yonent mooy mu gënal ñu ku ne te du la gënal ku nekk lu dul xamoo la ne ci moom xam ni yii kat moo tax mu gën ñëpp beneen bi it nag te moom la ñuy tëjee mooy nii Euh, ci mbindam li ma ci gën a marqué mooy ni lépp loo xam ne dañ caa wuute rek sëñ bi dafa ne ko dafa ne ko teg du ca wax képp koo xam ni ci aïma yi yaa xam ci fuqaha yi la wala ca ca ca nitu tasawuf yi la bu amee ñu wuute ci yow bu la tudd ci misaal damay joxe misaal ibnul arabi ak la muy baax baax yépp am na ñoo xam ne dañu am beneen gisin ci moom ibnu sab'in ak la muy baax baax yépp amna ñeneen ñu am geneen gisin ci moom afifu dini talmusaani noonu sadru dinil xawnami najmu dinil xamuuli wuute ya am ci ñoom ci wàllu wàllu waxdatul wujud moom la du moom ci wàllu al wal ittihaad ba xam moom la ñu wala du moom sëñ bi du leen tudd fenn ci ay téeréem waaw du leen tudd fenn ci ay téeréem kenn kenn ko gis ndax lan moom tasawuf gi mu incarné tasawufu jëf la du tasawufu théorie te ñoom seen tasawuf théorie daf cee ëpp ودنا تيري ابن عربي فصوص الحكم آه، الفتوحات المكية نيوم ابن الفارس سين تيري دنيو تيوريزي التصوف تسني بلولو تاخوكو تاخ تيوريزي تاخو التصوف تاخو كين ياغ كي تيوريزي موي كي دم با ياغ ام لومو مسلو نيت ني مسلو موي اكسبليكي لامو مس يو مي تك سي بيغ نك دي واخ لا كوكو دي واخ دا فا ملني غاي تاخام تي كو تي لانچوب جامبور موتاخ سين بي يوي ييب داكو تك جيل تصوف غو خامني عملي يون بحت تنكو تي توحيد تنكو تي na ko mag ñi jàngalee damay <laughs> ma tëj tuti dama dem Maroc don am téré yu mo sëñ Muntaxa don jëndulo ma and ak fekk fa ñaari sëtam ñu and di jënd téré yenn saa bu ñuy wër ay téré tasawuf ci ci maarat bi foire bi ñu gis ni gis ah, ki téré bi baxna di woo talé mané ki bokku la tasawuf bokku la tasawuf sëñ bi ki tasawuf de koy théorie sëñ bi nak tasawuf jëf lay lay jàngale waaw non ci ci gàttal loolu daal jërëjëf jërëjëf sëñ abdoulat euh kàddu yi amna solo lol euh tay na nañ ci jagle yi nga xam ne mbindum sëriñ bi am na ko ba tax mu am dayo ak valeur bi nga xam ne am na ko ñu ngi lay sant bu baax ci leeral yi docteur docteur Khadim Sylla euh, kon da ñuy ñu ñëwoon nag ci lu am solo ci yoonu mu murit mooy loo xam ne it bokk na ci lii gën a fësal tasawufu sëriñ bi ni ko sëñ docteur Abdoulaye doon waxee mm-hmm. mooy sëñ bi day jëf mooy mu tasawuf bi muy defarit day doon koo xam ne day am saadatu daare ni mm-hmm. loolu day feeñ sax ci ni sëñ bi di taalifeek ni muy tuddee téeram ñu am concept bu am solo ci biir mourid gi muy walu liggéey nga xam ne sëñ bi sax baat bi ko arab di woowee du ko ko woowee du ko woowee amal giñ ko miine dëgg la waaye da koy woowee kasbul xalaal talabul xalaal iltimasul xalaal sàkk lu lew dëgg la loolu nag lañ bëggoon nga dikkal ñu ci jërëjëf sëriñ Mamor kooku bàngaas la boo xam ne bu am solo ci yoon wi te dégg nga li ci ëppati solo mooy ni mu koy tuddee wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xeyri wahami nee na sakku alal joo sukkandiku boo mën a jaamu yàlla sàmm sa ngor faraatala ci ab julli kon nag iltamisol xalaala kulla saa ndax bi aklihi yabdul ola wa taa na ngeen di sàkku lu lew fu ngeen toll ndax lekk lu lew moo la mën a dimbale ci nga jaamu yàlla sàmm sa ngor ci xasiida gi ñu wax yaa mutaallixoona mu wax ne xutul xalaala watrukul xaraama fal tatlubu bil wara il marama ndax man axasal xalaala arda rabba amal xaraama fahu yurdi xibba ne alal ju lewut mënoo ci am ngërëmal yàlla ak foo ko mën a dugal ngërëmal seytaane ak ko saytaane topp rek nga ca mën a am kon nag sàkku leen lu lew loolu moo waral bi nga xamee ne première génération muy raayilul awal noppi na ci ñoom ba yabal leen lim leen dénke mooy na ngeen dem ci barab boo xam ne ñii leen booleel ngeen war leen a defar foo xam ne dangeen leen fa mën a jàngal ba ñu xam li ñu war a xam yar leen bañ mel ni ñu mel te te du jege kenn mbaa leen lu mën a yàq la ngeen di def ci ñoom waaye na nekk barab boo xam ne dangeen fa mën a liggéey liggéey boo xam ne dana tax ngeen mën a sàmm la ngeen mënta ñàkk ci luy yéwénal seen wàllu àdduna ak la seen diina soxlawoo dangeen ko fa mën a ame loolu moo waral ñu tasaaroo ci àdduna bi ba benn bindikat bu ñuy wax nee na bi mu fiy jóge ab anglais la nee na bàyyi na fi ñaar téeméeri dëkk sëriñ bi ñaar téeméeri dëkk yoo xam ne taalibe yi ñoo ko sos nee na ci biir ñaar téeméeri dëkk yooyu e tax na ba la nga xam ne dañ naan nañ ko ñorle ci gerte ak dugub nee na dépassé ne xaajub Sénégal gépp di ñorle te dafa coïncidé woon ak tubaab yi ñëw ci biir réew mi introduire culture rasière ne fokk dit ji pour ñu développer réew mi fokk ñu génn génn ci bay rek lekk bay lu ñuy dunde rek fekk ju bay loo xam ne dañ koy war a mën a jaay ci ay prix yu cher man cee développer réew mi fokk nag mu nekk produit boo xam ne bitim réew dañ koy soxla man cee am om la sax nag tubaab yi seen usines yi am bitim réew eh dañoo soxla woon kon lu ko alimenté soxla nañ gerte muy huileries yi ñu am foofu usines yi defar diw ak saabu léegi ñu soññee ca biir loola muy loo xam ne tey eh, permettre na taalibe yi tey ñu àgg ci foofu ñu àgg ndax lam laajan parce que dañoo ne Sénégal gerte rek lañu am ci produit boo xam ne soxla nañ ko bitim réew boo xam ne mën naa jar xaalis bu takku waaye booba nag la mu laajan Kajoor ak Bawal espace ya xat na xataay boo xam ne force yoonu murit képp moo mën a moo moom ca yooyu jamono parce que ay manding yoo xam ne nangami hectare la yañ soxlawoo ci bay ko ci foo xam ne ay forêt la force ba mu laaj ak ndigal eh, loola dooley doole doole koy def xaalisub kese du ko def mais fuñ ci yeb fuñ ci dem rek doon lee téeméeri hectare lañ fa soxla wala junniy hectare bala ñu fay am un mois gor ko lépp aménagé ko muy li ñuy tuddee décentralisation ak aménagement du territoire nga xam ne am na beneen tubaab muy Bourlin moom itam même ci époque boobu nee na benn village murit boo xam ne daa nga produire loo xam ne prix ba yées na un million ca yooyu jamono nee na amutoon nee na Cheikh Mamadou Fadel képp nee na fukki junni yi at mu jot daana ñorle lu bokkut ak ñeneen ñi ci des moo tax am na benn article bu nekk fii boo xam ne 1934 la ko ku ñu wax Robert eh, eh, de la vignette mana journal de la république bi top république française ñoko yebal muy ñew di def enquête xam nga lu mu wax dafa wax ne Afrique ndey sol nañ bubu mu yes pek mo xane mu mosuñu ko sol kan mo leen ko solal nak mu yoonu mourid. nee andi nañ système bu bes tek ci doxinu l'islam. mooy la lislaam soxlawoo lépp ci jaamu yàlla ak yar ak jàngale booleeg liggéey nag pour mën a soqali sam réew mën a développer sa société mu ne te la ci yéeme ñoom day yemuñu bi ñuy def conquête boobu yemuñu ci espace bi nga xam ne mooy seen espace nataal muy bawal ak li ko wër waaye nee na boo demee ña nga Saalum ña nga Siin ña nga Casamance ña nga Gambi ba ci sous-région bi nee na fépp ña nga fa te nee na liñ sukkandiku woon mooy yaar yi nga xam ne mooy développé am réew muy bay ak commerce nga seet ci biir commerce boobu xëy na dana gàtt waaye dafa nekk lu am solo muy lii am Ndakaaru xam nga 1924 la waa kër Serigne Babacar Thiargane ñëw ci Serigne bi Serigne Babacar Thiargane tàggu Serigne bi ne ko kat donga yi nga xam ne dañuy liggéey ci nawet. te bu nooraa ñuy ñëw di liggéey ci kër yi di defaraat kër yeeg yooyu man li ma ci am liggéeyub kër bi daf leen a ëpp may dañoo ëpp liggéeyub kër gi te bëgguma ñu taxawal ma doon sakku ndigal bu ma ko sañee ndax mën nañoo dem fi ñuy wax ndakaaru noor fa di liggéey baru jot ñu dellu siwaat sëñ bi bind wala si jaala lakum arda dalula fam suu fi manaaki bi awa kuloo min risqi i wayey nu sóoru ne ko lii mooy seen bu yóbbal waaye naa leen nañ ñëw naa yóbbante ci ñoom nag ndigal bu ñu demee nañ xam li ñu bàyyi gannaaw ak lañ lañ lañ yóbbaale ak lañ fay fekke nañ góor góorlu ba bu leen kenn soppi bu leen dara soppi te bépp liggéey bu ñu leen jox boo xam ne mën nañ caa am teraanga ak li leen tax a jóg metti waayu liggéey ba ak xeebu ga ba mu jaar seen diggante ak ñoom mu ne ko ndax liggéey bu metti kat te xeebu moo gën ci as gor rawatina ku toll fi ñu toll di sàkk ngërëmal yàlla tàllal sa loxo di laaj mu ne ko ndax loolu kan ñett rek ñoo ko sañ te duñ ca kenn ñoom ñooñu muy mag mi nga xam ne dem na ba dooleem jeex te amul njaboot gu ko wutu ci boppam kooku nee na jullit yi buñ defee la ñu war a def waruñoo xaar mu leen laaj ñoo ko war a yoral boppam waaye buñ deful la ñu war a def nag sañ na leen a laaj ku ñaareel ko muy gone gu ndaw wala sax mag moo xam ne am nag laago goo xam ne tax na mënta defal boppam lam laman mana la ko mën a may teraanga nee na kooku bu juri defé lañu wara def ñoko wara fekk fofé yor ko suñ ko deful nak sañ na leena man na leena laaj ku ñettel ka nak moy nitu yalla ku laxasaayu jëm ci boromam fa lepp jox borom ka yu and ak mom ne ko lo sumbal yalla bu koy di def ma ngi sa gannaaw bu ko alal de def ma ngi sa gannaaw neena na kooku it bu lol moy bu yalla dara jakka wala juma ak lolou mën naa geesu ñooñee ne leen mais kurul loolu sañuñu ko loolee tey yóbbal boobee ñu yóbbu woon mooy seen li nga xam ne moom lañ yóbbaale woon ba moo introduire tey li ñuy tax système bawal bawal mooy système boo xam ne sukkandikuwut ci capital du qualification waaye ci pas-pas ak ngëm-ngëm ci ne ak jom ci ne lépp loo xam ne lu teraanga di may te ngor di ma ko may coono du teqalee sama diggante ak moom waaye li nga xam eh, modi xébu di du kayit ko teqalikoo sama digganteeg moom loolu mo taxan ñenn ña dem di yallu ji ci wax ba ñenn ña di jël ay bouteille di ko raxas di jaay ba lolé ñu doon raxas di jaay sax di ko ci quartier résidentiel yi di andi mo jur li ñuy tuddé tay pakku lambayé ak salle de wante yoy fofu la cosaana won buñu amaté benen beneen waxtaan na mu tàmbalee ba agsi muy système bo xamné kon ci la lepp ja eh, ki ñi ñëwaat ñëpp tey jóge Kajoor ak jóge Njàmbur ak Siin bi ñëwee loolu lañ intégré ñu naan bawol bawol te fekk na du originaire bawol mais système bi moo jóge bawol ba mujj ñëpp incarné ko muy loo xam ne tey fa tabaarakallaahu lu lu yaatu woon la waaye jataay bi moo moo moo moo xat. jërëjëf jërëjëf docteur am na solo lool euh, maa ngi jégalu sax ci dagg gi may dagg. xam naa waxtaan wi moom daanaka dañuy daal di tënk rek ndax ñi ngi xamal ne fukki minute rek moo ñu dese. Mm-hmm. xam naa kon dañuy jox ku ne rek ci ñaari minute mu teunk rek te taggo inshallah oustad Oustaz Sëñ ñu jox la nga taggo te teunkale nak ci wote sëriñ bi ak fi jamono tollu euh, ak yu bari yi dekk wote yep rek euh, ñu tëjee lool ci ñaari minute rek inshallah bismillah bisimilah. mamour ñi ngi rafet lu baax kaddu yam na solo lol lol sax rek wote bi dama japp ni mom masoul yep ñep la lepp njariñ la niñ ko waxe ni ci wet yep ci xam-xam ci yar ci nak mi ko mbokk yi yi wutool noonu nag ñu ko yalla jaare ci seen loxo. mu war dem ci àdduna am nañ yan bu rëy bu ñu war a yan yóbbu lu jàpp taan yëg-yëg bi ñëpp kenn ku ne ci noonu war naa jàpp ne fu mu nekk ndawul yoon wi la kon war naa fexe ba wooteeb sëriñ bi mu di ko àggale fépp loolu jàpp naa ñëpp ko war euh, bokk na ci xam-xam bii sëñ Abdoulaye docteur Abdoulaye doon wax ñu fexe ba ni ñëpp jot ci dëgg la raw du raax yi nag ñu mel na ñoom ñu ngi ci góorgóorlu di ta di di di di taxqiq téere yeeg di ko tekkeek waaye sëriñ Tuubaa daa war a àgg ndax fu mu ñu jëriñoo ko kon ñu yëngu ci xam-xam am nañ sasu rëy ci fexe ba xam-xamum sëriñ bi trois sub almi bi mu am nañ ko àggale alhamdulilah ñu ngi am yaakaar nag ci naal yi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha mi ngi koy àggale te muy naalu xam-xam daaree xam-xam yi nga xam ne kilif kilif fi naaloon sëriñ bi doonoon amee bétam muy université bi ñaan mu àgg ak jàmm am nañ yaakaar ci lu bari ci yooyu dana ko dana ko àggale waaye daal jàpp naa ne ñun ñëpp war am yëg-yëgu fooy dox jàppal ne yoonu sëriñ waa nga fa yóbbaale ci sa jikko ci sa nga xam soo melokaan say jëf ak say jëflante ba nga xam ne bu nit ñi bu la gisee rek xemem sëriñ bi xemem yoon loolu wartee fu ko ne la jërëjëf jërëjëf kon loolu mooy li sëñ bi waxoon rek wali xaada ahbaban bihim uzhiru nuska waaw taalibe yi dañuy jëf rek ba ku leen gis xemem sëriñ bi euh, sëñ Abdou laxat ci ñaari minute rek nga tàggoo euh, bëggoon nañoo ñëw sax ci ñi nga xam ne borom xam-xam yi jàngee ci sëriñ bi waaye waxtu may mayewu ko nga tàggoo rek ci ñaari minute soññee gi nga xam ni moom sëñ Mbacke Abdourahmane mi ngi ko doon wax léegi gën a yokk pastif rek ci wàllu xam-xam ndax sëñ Touba moom léppam xam-xam la eh, sëñ Touba théorisé wul dara eh, lépp rek da koo teg ci xam-xam xam-xam bu leer xam-xam boo xam ni bu ñu segg la bu mucc ayib la bu amul genn genn demal ak dikkal ak liim ak eh, liim laam laam laamee ci lu mel noonu la tegoon njàngaleem ci lu mel noonu la soññee woon alhamdulilah nag wàcc na fi mag ñoo xam ni fa mu fa liggéey bi toll woon ci jamonoom puus nañ ko ba mu yegg si fii waaw ndax euh, ku xool dundinam ak dundinam ñamu yar da gis ni wàllu xaqiqa ak euh, sharia dañ ci nekk saa su ne rek di at di sa ar jox dañu am équivalence ñoom ñaar lu baree bari njàngaleem bii joyul ci kaw bee bee joyul ci kaw bii loolu yàlla dimbale na nag ba tuubaa euh, li ci ëpp noonu lay doxe ba tey am njàngaleem ci noonu lay doxe ba tey moo waral yii fi am di fi am saa su ne nag ma wax ko Euh, mooy benn dëkk ci Sénégal boo xam ne tey boo soxla woon ne damaa soxla téeméer wala ñetti téeméeri nit yu mën a jàngale xalil léegi ñu yegg si dama soxla ñetti téeméer yu mën a jàngale ibnu malik léegi ñu ne la ñu ngi nii ñetti téeméer yu mën a jàngale maqaama léegi ñu ne la ñu ngi nii te am jàng daanaka fa la yemoon ci ci jamono yooyu waaw loola boo ko soxlaa léegi ñu teew fii Touba loola nag imtidaad la ci ci njàngalem sëñ bi kon euh, yal na ko yàlla sunu borom continuer amiin docteur Khadim ci man de dama gis ni moom daal ci liñ ko war a roy nun mooy li ëpp ci ñi ko wuy si ñëpp wuy siw ñu ko ci lu mu leen wax waaye ci lu mu leen wan moom li eh, docteur Sané wax li ko ittee leen mooy fexe ba convaincre nit ci ay action wan la nga gis waaye toon rek ci di la wax li nga dégg kon nag damaa jàpp ne ku koy liggéeyal fi mu ne foofu lañu war a jëme liggéey bi mooy même bu dee ñun ñuy waxtaan ñu gën a jëme suñuy waxtaan ci xamal nit ñi ne njagam wuy nañ ko ba noppi nañ nu wax li mu doon doye ak fi lu jëmee waaw woo nañu doyloo nañ ko gëm nañ ko ba bàyyi nañ ñëpp wuy ko lu gëm-gëm la ak pas-pas la kon nag li ci des nañ nu wax lim nu doon doyee muy ci yi ñu fi jël yépp lenn lu ci nekk kenn ku ci nekk seet fan nga ca bëgg a jëm ñu wax la ca yoon wa sëñ bi tracé woon ak ña ca am cër bañ ca am fañ ba am ko su ko defee rek nga jaar foofu sëñ Ahmadou ci ñaari minute rek ñu yëkëti jotaay bi inshallah allah waaw euh, Mamour xana sant rek ci jotaay bi xam na ne sëñ mooy loolu géej li goo xam ne du fer géej li goo xam ni kenn ku ne wet ga nga ca dikkee rek xam mhm. keneen nga ca gën wet boo gisee eh, maanaam mawduwaat yi nga fi yëpp bu ci ne maanaam mënoo ca indi sa asaka asaka ci li nga xam ne moom la kenn ku ne waajal kon yal na yàlla may tawféex yi nu mën a topp ci ay tànkam roy ci ay ndigalam sëñ ba jax dara wax ne murit dëgg yombul la yombay nga wax ne man ab murit laa te doo ab murit kon murit du lu yomb du lu woyof itam faw itam murid dafa bari loo xam dara moom moom moom laaj na ko loolu nag yàlla na yàlla may tawfeex yi man koo jëmmal suñ Tuubaa ku ma sax dikk ci moom am na net li boo xam ne mu ngi ci moo mag bi dañ ko arabal cosaan la wolof la dara wax ne murit ñi ngeen gis ci àdduna ñëpp xam leen ne ay murit lañ ñenn ñi ñoo ñëw ñoo ñëw ñenn ñi ñëwaguñ ne nag murit bu ñëw nag mi ngi mel ne liir buy doo ko juddu ni muy mel ne liir buy doogu juddu xam ngeen len lu meuna a lu may meew mi balle ci wenn ñu ko xamuñu ko mu ne leen buy doogu juddu meew mi balle ci wenn ndeyam rek wala soow mi balle ci wenn ndeyam rek lay meuna a murid nak non la mel manam buy buy buy jëbbuloo itam suñ doylo sëriñ bi yem ci mom top ay ndigalam bàyyi ay terem wa tarku li mutlaqan non mu ko waxe ci ci bayt ya loolu moy mooy li jariñ dara wax ne man may seen nday loolu moy maanaam wax ja te man sama soow du jeex mukk te ko ci namp di nga mag di nga am katan te di nga barkel da di wax nak ne ku ñew fi man nga fexe ba sax fi bañ feral len moy terbiye gi jël taxaw gi ngay taxaw mom feral gi moy bu ñe ba yewi la ne nak kuñ ci feral na nga moytoo mëq suuf ndax bo mëqee man nga febar feebar te boo feebaree mën ngaa faatu mëq na moy aduna ak daal ne liir itam xale bu ndawet bu gisee ndeyam du am soxla ci keneen ku may moom kon loolu taalibe yi loolu mooy doxin wi mooy doyloo sëriñ bi waaye nag fexe ba li siñ bi bëgg ci noonu di suñu yitte bëggu sëñ bi itam ñu jiital ko ci lépp ci jéem a jëfe ay ndigalam ay tereem jërëjëf jërëjëf sëñ jërëjëf mbokk yi ñuy doon topp ci télévision Futurs Médias kon waxtaan waa ngi noonu ñu doon waxtaanee woote bi nga xam ne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu moom la woote te woote woon ko ci jamono yi ñu toll muy ñaar ko fu ak juróom-ñaar ci weeru koor ca Mbàkke Kajoor woote boobu mujj bañ koy woowee yoonu murit euh, waxtaan wi nag ci tënk rek mooy feeñee na ci ne sëriñ bi lii mu doon woote lislaami kese la benn menn mbir a ko taxoon a jógit mooy defar nit ñi ci turu diine li fi sëriñ bi ba ci xam-xamit patrimoine la bu riche boo xam ne jullit ñépp mën nañ cee jariñu loolu nag ñi ci jiitu mooy waa kër sëriñ bi feeñ na ci biir waxtaan wi it ne sëriñ bi mbokkuk lislaam gi daana ko digle te daana ci taxaw te lim ci jëf moo ëpp foofu lim ci wax feeñ na ci biir waxtaan wi it ne jot na nag ñu jël sëriñ bi wan ko àdduna bépp bañ jot ci ndax ñu man cee jariñu anam gi ñu leen koy joxee nag bi ci gën a jege mooy ñuy jëf ñuy gis mooy li sëriñ bi daa wax ñuy di ko jëf ñuy gis ndax sëñ bi moom njariñul kese la wala yow ma billaahu yuin man shaahu wa fi gadi ne suñ borom njariñ la njariñ njariñul mbindeef li la ma def njariñul mbindeef li la ma def loolu nag euh, kenn ku nekk ci ñun rek daa war a gëm ne mission boobu moo ko war a joxe euh, kenn ku nekk na gëm ne moo ko war a wane ba ku ko gis bu jëflanteeg moom ku ko seen gën a naw sëñ bi képp ku jëflanteeg moom gën a fonk gën a wormaal gën a wekk sëriñ bi ak waa këram kon ñoo ngi feddaliwaat kàddu yi cant yi di sant sëriñ Abdou Samad moom suñ chony bu mi nga xam ne waxtaan wi fii lañ ko doon defee ci këram di sant rakam sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Bachir Mbacke Abdoul Khadir di ñaanal sëriñ Mountakha Mbacke mu yàgg fi lool te wér suñ borom kattanal ko te barkeel ko kon jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah di sant bu baax it waa télévision Futurs Médias ñi nga xam ne ñoo ñëw ba Touba jël si waxtaan wi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu